ñu jël euh, le doyen Mamadou Sy Albert salaamaaleykum. maaleykum salaam. sa doyen ñu ngi lay nuyu di la mhm. ziar. baax a baax. baax a baax euh, ñu ngi am mbégte dara la suñu plateau nañ ci wax tey jii waxtaanee li nga xam te ne mooy 100 jours de jomay euh, guerre de positionnement dans l' opposition mooy ab laaj bu ñu samp rek ndax gis nañ jamono ji opposition bi yëngu na Bougane ràññee nañ ko aussi tamit Thierno bokkum aussi euh, li nga xam te ne aussi mooy benn Bokk Yaakaar ñu ngi génn di tiire gannaaw cent jours premier euh, les cent premiers jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye balaa ñoo gën a dugg si bi rek nga defal ma euh, jàngat bu ndaw rek par rapport ak cent premiers jours yi yow noo ko jàngatee. waaw lu ci jàngat mooy nguur bu bees am na nguur bu bees ñu ngi ñu koy ngi koy taxawal. Mm-hmm. mooy gouvernement bi. Mhm. Euh, mooy nomination euh, qui poste euh, société nationale mhm. avec la politique publique politique publique gouvernement de commencé na génn. Mhm. muy agriculture muy wàllum baisse des des prix. nous la la gestion des urgences. loolu aussi que na ci réalisation trois mois

Euh, résultat bu baax. ndax mm-hmm. ci Sénégal tànn na ko pour mu def médiation CEDEAO ak euh, yenn pays yi nga xam ne jóge nañu mm-hmm. CEDEAO. donc euh, mën nañu wax daal gouvernement bi mu ngi mu ngi liggéey nguur bu bees bi. Mm-hmm. mu ngi koy taxawal. léegi nag. Euh, opposition aussi mu taxaw. pour mhm. euh, majorité. Mhm. Mhm. majorité présidentielle. donc doyé si cent premiers jours yi xel dal euh, président def déclaration avril. Mhm. déclaration euh, discours à la nation. Mhm. bindna na administration bi pour wane que mom bu mu bëgg moy djub djubal ak mhm. euh, donc orientation yi mu joxe. Euh, même ci conférence de presse bi. une orientation bu leer ci walu politique. réforme institution bi. ci walu économie. mom modèle bi mu choisir moy modèle endogène. ci diplomatie li mu choisir euh euh, intégration africaine avec diversification donc orientation de leer na. Mhm. doxalin bi aussi nous euh, privilégions une gouvernance concertée et inclusive. Mhm. Mhm. donc loolu euh, en tout cas feuille de route président du monde, leer Les léegi nag mën nañu wax aussi que Sénégalais ñu ngi xaar. xam ngi aussi. Mhm. Euh, diis mhm. euh, loolu aussi. Euh, mhm. il faut que président ak gouvernement bi. ñu ñu xool euh, naka la ñuy taxawee. ci attente yi. bon peut-être problème dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mu am mooy problème assemblée nationale. assemblée nationale amul déggu. gouvernement bi ak majorité parlementaire bi amul amul déggoo. xamuñu nag loolu lan lay jur est-ce que premier ministre dina dem teewi def déclaration. ou est-ce que dafay am dissolution assemblée. Euh, loolu daal euh, des naa des naa leer ci xel xel loolee rek ci cent premiers jours yi rek gis nañ ne opposition bi yëngu na jamono ji na bokkum ñu ràññee ci à chaque fois mi ngi def ay sorties médiatiques. de même que kii di jiite gëm sa bopp Bougane Gueye Dany aussi tamit dem génn na rawatina aussi tam waa Benno Bokk Yaakaar est-ce que mën nañu wax ne guerre de positionnement am na ku nekk mu ngi jëm a brukloo rek pour occuper li nga xam te ne fauteuil de de chef de l'opposition gën a ràññeeku ci ci opposition bi. waaw li ñu wax ne que opposition bi euh, nekkul benn opposition. ay mhm. ay opposants la ñu am. Mhm. Mhm. Euh, ku mel ni Amadou Ba. ku mel ni Bougane. ku mel ni mhm. Thierno Bocoum ku mel mhm. ni euh, waa APR. Mhm. Euh, ku nekk mu ngi positionné wu. donc loolu position personnelle la te ay leader lañu. Euh, wane nañu que ñoom anduñu ak doxalin président Diomaye ak majorité bi. léegi nag ku nekk ci ñoom mu ngi positionné pour wane ne ci opposition bi la bokk. mais mënaguñu wax. tey opposition parce que dajewuñu ñoom ñëpp benn opposition moo am quand même mooy opposition parlementaire. Mhm. ci ci parlement bi. Mhm. Euh, Benno ak APR. mais mhm. majorité par parlementaire mais sur le plan politique. Euh, euh, ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci début c'est un début du processus. opposition mu ngi mu ngi mu ngi taxaw mu ngi repositionné. loolu nag mu ngi suñu kanam di lañu xam réorganiser bi lu wóor ba wóor dina am recomposition politique ci opposition ki li ki Amadou Ba moom mi génn deuxième ci élection ñu génn ñu ngi ñu koy eh, ñu koy tapal li nga xam te ne leader de l' opposition bu ñu ko mënee wax noonu moom actuellement est ce que li nga xam te eh, ne vedette boobu noonu est ce que est ce que Thierno Bokoum wala Bougane est ce que duñ ko duñ ko duñ ko nangu ci Amadou Ba. Non, beaucoup, hmm. beaucoup, je je beaucoup. Hmm. Amadou hmm. leader chef de l'opposition bu résultat élection moi, je suis le deuxième euh, après Jamaï donc normalement suis le chef de l'opposition normalement mais du am ba am euh, de que Je suis le APR de Donc benn donc je suis ko chef de l'opposition tant que Amadou Ba amul de ci gannaawam APR ak benn mhm. bon su dee aussi Bougane wala Thierno Bocoum mhm. mais mënuñu leen méngale ak Amadou Ba mhm. euh, nekkuñu candidat euh, ci élection bu mujj bi ay leader lañu pour kii am na parti am kii am na mouvement citoyen c'est des opposants mais quand même euh, rapport de force entre Amadou Ba ak ñooñu vraiment bokkul bokkul mais mais ñooñu ñooñu lañu gën a ràññee jamono ji ci ci wàllum euh, ci wàllum euh, communication média communication politique ñu ngi gën di wax est-ce que loolu bu ñu si continuer ak Amadou Ba posture am lu muy gën di wax du bëriwul lu muy koñee bëriwul est-ce que loolu aussi du ko du ko ñooñu duñ ko duñ ko sur le plan sur le terrain nii est-ce que duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko mën côté boobu noonu. non non hmm. loolu campagne médiatique la hmm. campagne médiatique euh, hmm. dem def conférence euh, dem de interview loolu c'est normal activité euh, de communication politique mais loolu wute na lool lool lool lool ak ak doole politique influence politique influence politique leneen la laaj nga am appareil Mm-hmm. nga am des des militants nga am des responsables nga mën a woote ñu wuyu la. Mm-hmm. Euh, nga nga mën a wax ñu déglu la. Mm-hmm. Euh, loolu leadership la laaj. Euh, defe naa daaw sori nañu amaguñu encore leadership. ci ci opposition bi léegi nag loolu kenn du ko décréter. ah c'est la vie qui crée l'opposition c'est la vie qui crée le chef de l'opposition. waaw su mu nekk nag def naa loolu moom mu ngi ci suñu suñu kanam. Euh, jërëjëf euh, doyen ñu bàyyi la war nga dugg plateau onze heures et demie ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la di la remercier bu baax euh, daanaka jot bi temps bi bëriwut waaye may nga ñu au moins benn quinze minutes ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax doyen di la remercier lay fay merci